président de la République a décrété euh, euh, xalaat en tant que citoyen ci loolu. waa jërëjëf euh, soxna Marème jërëjëf Thiès Info kontaan naa trop ngeen fekk ma fii Thiès Est nga xamante ni mooy commune bu gën a am population ci ville de Thiès capitale régional de Thiès Thiès nekk deuxième foyer ah des contaminations coronavirus bokk ci ñaari région yi nga xamante ni ñoom le président décrété état d'urgence assorti d'un couvre-feu de vingt et une heures à six heures du matin waaw am na sax ni cinq heures waaw mais décision initiale bi six heures du matin la woon mais tey boo xoolee président lu tax mu jël décision boobu jëlul décision boo xam ne da ko def de gaieté de cœur yàgg na taxaw di artu nit ñi naan deuxième vague bu amee ci réew mi maa ngi fàttaliku keroog ba muy def journée ci prix bu mu doon décerné ci wàllu innovation numérique wax na ko jam ñaajo mu ni bu ñu deful nànk dinañ dugg ci deuxième vague te baaxul ci réew mi te balaa ñu ciy toll dinaa jël ay mesures yi nga xamante ni dinañu mën a éviter loolu lool tey fi ñu taxaw corridoru parcelle cité Lamy la ci commune Thiès Est fii moom population mais yéen seen bopp boo leen xoolee nit ñi respecté ñu benn geste barrière les populations ñu ngi def attroupement les populations ne respectent pas les distanciations sociales et physiques les populations ñu masque mais bu nit ñi tollee ci niveau boobu chef de l'État en tant que garant de la stabilité du Sénégal, garant de la santé des population yoon la mu jël ay mesures fortes et coercitives loolu bu koy def c'est pour mën a préserver population yi préserver la santé publique parce que moom moo yore li ñuy wax responsabilité bi tey jii li ngay gis ci dëkk bi fu mu jëm baaxul ñëpp gis nañ ne deuxième vague bi mooy deuxième vague bu gën a mortel kon il faut que nit ñu seen bopp xam ne lii président di def defu ko parce que moom ci boppam mu xëy benn jour rek daan na ne nit ñi wàññi seen déplacement mais da ko def parce que xam na ni fa ñu jëm bu taxawul baare lii mu gis bu dalee suñu kaw dina nekk loo xamante ni du jëriñ kenn dina nekk li nga xamante ni dina gaañ ñëpp dina nekk loo xamante ni dina permettre Sénégal dootul avancer ti ba faw Euh, interview ñu jot am nee nañu gisuñu intérêt bi parce que guddi la te nit ñi ñu ngi bëccëg bi. xam nga moom président de la république décision bu mu jël tëb tëbul jël ko dafa dajale borom xam-xam yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci wàll bi yendu ak ñoom toute une journée ñu tegal ko situation bi yëpp nu mu mel ci réew mi wax ko fan moo am problème jox ko ay solution proposé ko ko. moom ba mu jëlee def synthèse u proposition ci la gis ni lii muy def mooy première mesure c'est pas la dernière mais gëm na ni bu ko defee xëy na dina atténuer situation bi mais bu ko laajee dina ko gën a yokk parce que lépp mu ngi dépendre ci riposte bu ñuy def par rapport ak deuxième vague bi gis nga tey président dafa taxaw mu lancer appel aux élus locaux conseils départementaux yi communes yi man ci laa bokk moi je un élu local pour que ñu ni sensibiliser population yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi population yi dañoo war a comprendre que ni lii président di def ñoom la koy defal moom mu ngi respecter geste barrière moom mu ngi def distanciation sociale moom mu ngi jël toutes les mesures yi nga xamante ni pour mën a préserver boppam na kon xam ngeen ni bu fekkoon rek dafa ni damay def comme ñëpp sama yoon nekku ci mu toog seetaan kon tey Sénégal dina am beneen situation bu ñuy dund man gis nga lu président wax même ci vaccin bi man Ablaye Sow en tant que conseiller départemental à Thiès man je réponds à l'appel du président parrainant pour être le premier cobaye du Sénégal buy nangoo jël vaccin buy njëkk a dugg Sénégal parce que foofu lañ toll man je donne autorisation au président la République bu vaccin duggee Sénégal nañ njëkk a ñëw ci man ñu vacciné ma jël naa sama bopp def ko kobaay parce que foofu lañ tollu ci réew mi tey njiit boo ko amee muy def lu mu mën pour mën a soppi suñu dundin créer fi situation boo xamante ni dinañu mucc ci corona bi bu demee nela indil naa la benn solution dañuy am confiance ci moom wala ñu bañ a am confiance ci moom waaw gis nañu nit ñi nee leen takk leen masque nag ñoo takk masque kii leen bari mesure barrière yi euh, de distanciation également ñu ko respecté solo yow dëgër bopp bu ñuy dëgër bopp lan moo ci euh, euh, saafara. bi mooy lu président wax rek nañ jëli vaccin yi ñu vacciné ñëpp bu ñu vacciné ñëpp bu boobaa bu fi corona jógee dootuñu soxlaat ay gestes barrières ñu dell ca lañ nekkoon ginnaaw ñun lool la xam mais nag il faut que nit ñi mën a xam ni. lii la ñu mën a def wala ñu def lële tey solution radicale bi mooy ñu indi vaccin ñu vacciner sénégalais yëpp sans exception à partir de ce moment au moins dinañ am la certitude que dinañ immuniser population bi par rapport à ce virus mortel donc bu fekkee nit ñi mënuñu respecter les gestes barrières bu fekkee nit ñi kenn ci ñoom jéemul xalaat ni man suma ma protéger wu sama bopp maa ngi ñàkk a protéger ku ma dendal eh bien alors ñu appliquer vaccination obligatoire pour tout le monde